bi فيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وسوى مالك وعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان مرتديا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجو برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله أنت رئيم راسي أجو برحمتي ألا ألاقي درا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 La voiture que vous voyez la voiture de trois mois en Afrique. J'ai passé par la Mauritanie, Mali, la Guinée jusqu'au Côte d'Ivoire. Et après, j'ai choisi de raisons. Parmi comme j'ai dit, a beaucoup de potentialités à exploiter, agronomiques et les moyens Mais encore, il y a la stabilité du pays. Et la stabilité, chef ou guide religieux. Ça, on ne peut pas ignorer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 bokk ci li nga xam ne dana jëriñ réew mi dana jëriñ taalib dana jëriñ waa réew mi yëpp ñu jeexal foofu kaddu yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah wa innaka albaayisul muqim dararin كويتني جملة الأقدار يا الله أنت سيد الأنسين هذا سعادته لبيت رايك من